Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te a ah, naa la. di la ubbee. foo ah, maa ngi nii rek nekk ci business yi rek. Ah, ay ci biir loolu tey ñi njëkk waxee li nga xam ne moo ñu findi muy concert tey yow nga bokk ci les présenteurs yi présenter les artistes ak presse ñi nga xam ne ñoom ñoo joor ambiance scène bi le temps que l' artiste di ñëw nan la la. bon mbégte rek yàgg yàgg nañ ko def xam nga soo euh, dafa neex nga ñëw jëngal public bi balaa artiste bi ñëw suñu but mooy tàngal gars yi nga xam ne waa ji bu ñëwee dañu ne fekk gars yi nga xam ne concert dafa war a neex concert waroo ñëw rek taxaw ñun loolu lañu fi andi ambiance neexal. waaw mm. kay. mais mais c'est pas donné à parce que yéen bëri ngeen macha allah mais ñu taamu la ci yow pour nga ñëw gérer loolu. ah loolu nag moom dafa xaw doy waar de bilaay <laughs> dafa xaw doy waar xam nga rek peut-être dafa nekk loo xam ne xam nga ñu ne xaritu xale yi lañ ah. waaw donc looloo tax xam naa ñu wooñu rek. bu ah. ñu gën leen neexal quoi. Ah. parce que ñoom suñuy gaañ lañ. d'accord ni ñu koy duudu ku ko xam-xam ko ci ambiance dëgg la duudu ku ko xam-xam ko ci comédie duudu ku ko xam-xam ko ci série yeeg fecc beeg yooyu euh, polyvalent boobu nekk ci duudu lan la ah, du lu ma dab de loolu moom mënu ma ci wax parce que dafa ne yàgg nekk ci man balaa vidéo yi sax man dama yàgg bëgg ay affaire euh, lépp lu jëm ci aar ay dessin feej wayandu comédie moom sama waa gaale yëpp noonu lay mel loolu moom xaw ma sax na laa koy expliqué. c'est naturel quoi. waaw c'est dans le sang. waaw c'est le sang. Ah, ah. acteur bi. bi moom loolu tamit ba ma nekkee xale ba léegi dama ko bëgg man sama but ba may dugg ci vidéo yi c'était nekk acteur créer sama propre personnage ba mën nekk après acteur. leader te incha allah yàlla dinañu ko may. Doudou il est célibataire ou marié. non célibataire daal célibataire. lan lay xaar bu takk jabar. loolu après ci kanam dañuy ut xaalis ba pare dañuy ut xaalis. mais ngeen di toogoon di xaar pour nga takk leen loo leen di wax. non nañu xaar ba xaalis bi dugg. ba dugg ba léegi. waaw incha allah bu duggagul duggagul. non duggagul gis naa amuñu dara. <laughs> tout récemment ñu ngi gisoon ngeen joué série bu am sens bu nice nga bokk ci ak yow Mahfouz ak ki nga xam ne nag moom moo di euh, euh, Fred ak euh, ki nga métti moom moo di gën a laqal taan moo métti di Samuel ngeen joué ci li nga xam ne moo di Samuel ci poté Marichou mu nekk série toj série xam ne dafa daal di dal ban avis nga am ci waaw euh, les quatre fantastiques la boobu euh, Marodi moo doon dóor série nice quoi moo xam day génne yenn affaire yi am ci diggante sëriñ yeeg bagage yooyu malheureusement dafa teel a jeex gars koy laaj mais am na beneen buy ñëw bu dàq boobu incha na ko gars xaar. sa diog Malcom yëg moo tax suñu defee dara rek day jàll. Ah. waaw ay eh, merci mon frère. oui vilo P. jaajëf waay bëgg de jaajëf. Setsima TV. L'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima yu